ak Badiane Baye Diène ñu bàyyi la le temps nga dalal sa invité. Mm-hmm. général. Mm-hmm. ñu bari xàmmee ko muy ànd ak ñànku. Mm-hmm. nekk ci papaam. général maa ngi lay nuyu bu baax di la bàyyi nga nuyoo. Euh, Badiane maa ngi lay fay nuyoo. di nekk ci plateau bi yëpp. nuyu bu baax bépp sénégalais bu toog jamono jii di seetaan. mu mm-hmm. ah, ngi noonu. Mm-hmm. d'accord général gis nañ fan yi ku nekk di def sortie di génn rawatina réseaux sociaux yi. Mm-hmm. muy yaadoo bi nga xam ne dafa nekkoon ci yéen. daal di feebar euh, ñànku ñu bari naan moom moo faroon a jiitu wala moo faroon na njëkk. parce que yaadoo suñ ko xamee ci ñànku Faramareen lañ ko xamee. lan mooy problème bi. waaw bàjjan nit ki bu la yàlla defalee lu nga bëgg. da nga naan alhamdulilah bu la tegee nattu nga ne alhamdulilah ala kulli haal ah, coow li bari na mais nit bu nekkee ci métit nekk ci eh, tawat bu nga xamante ne saafara la soxla ndimbal la gën a soxla ka détail moo tax ah, ñànk bi nga xamante ni mooy ndey mi liggéey fexe na faa dem ànd ak man ànd na fa ak benn xale bi jigéen boo xamante ni bëgguma tudd turam ndax xaw ma ba bëgg na ko waxtaan nañ ak ay mbokkam jox na nu ndigal pour ñu jël ko yóbbu ko hôpital ñànku jël na ko yóbbu ko clinique bi nga xamante ni fa la nekkoon débuté fayam euh, lépp lu ci am na nag docteur bi waxtaan na ko ak ñànku incha allah rabi lu si am dinañ ko yëpp soobee yàlla euh, def nañ ko depuis samedi. depuis samedi euh, mm-hmm. naa dem parce que ku nekk surtout influenceurs yi. Mm-hmm. ku nekk yaa ngi def vidéo di def live mm-hmm. ah, ñu leen yónnee ni mooy yaadoo. gis def vidéo bi nga xamante ne nii. ñi rafetlu nañ ko ñenn ñi rafetlu wuñ ko. parce que dañu ne euh, rafetul ci boo xamante ne nii da nga dem seeti ko taal sa caméra wala sa téléphone. muy saw am problème trois jours. Mhm. mënul dem toilette ñu daal di koy wane. Ah. loolu ñu bari rafetlu wuñ ko. Mhm. Mhm. waaw ko loolu liggéey jàmbur la moom xam naa noonu la ko xalaatee moo tax mu defee ko noonu. mais lu nga xamante ni moo nu concerné mooy ñun suñu diggante ñun ak yaadoo lu nga xamante ni mu ngi suñu diggante ñun ak moom dinaa arrière tuuti ci yaadoo ñun lay liggéeyandool depuis 2011 kon yàgg nañ suñu grand théâtre 2023 ba muy jee waajal grand théâtre bi yaadoo si état de grossesse la nekkoon ban pare moom dafa insister woon ne day jouer grand théâtre ñànk moo ne ko ak état bi nga toll duma la bàyyi ngay yéeg sur scène yow demal nga toog. ban année la woon. ah ban année. 2023. Euh, waaw euh, ba ñu jógee grand théâtre une semaine lañ si teg ñànk ne ma comme yaadoo ba ni mujjee gisante ak moom sori woon na demal nga xoolal ma ko ba ma demee fekk naa mu am doom ma ñëw informé ko ñànku ñànku toogaat na une semaine ne ma demal nga xool jiwaat ko ma demaat fa ñu ne ma yaadoo dem na kër yaayam. jigéen ju am doom nag bu la waxee dem na kër yaayam yow lu ngay jàpp mooy dafa dem nàmpali ji nakati boobu feebar bi moo ko. moo ko xawoon attaqué way mm-hmm. d'accord yéen yéen a ngi fay doog a dem wala demoon ngeen fa. ay yoon ndax ndax lu si jiitu rek mooy ñànk ba mu yëgee nii mi ngi dalal jàmm dem na fa moog Dukkure. moom ak Dukkure. Mm-hmm. dem nañ dalal jàmm fekk boobu ñu ngi waroon dem euh, 2STV yi ñu dem dalal jàmm juste ñu ngi fekk nag ñoom yaadoo di génn parce que amul woon place foofu. ba leen ñaa ko laajee lu xew ñu ne ko problème place lan am ñaa ko def leen bu leen dem xaar leen gis benn waay bu naan Lamine Lamine ne ko ok xaw ma woon kii sa jigéen la affaire mais comme ñëw nga dina def taxawaay boo xamante ni euh, dinañ ko def lu nga bëggee ni nga ko bëggee mais amuñu place dañ lay bindal benn kayit boo xamante ne da nga am fu nga koy déposé bu ko defee ñooñu sax mun nañ laa noppal mën nañ jël yaadoo à charge. boobu feebar bi siiwagul. waaw ñun nit ñi ñoo njëkk a sax pour dire vrai parce que ñun. Euh, jigéen euh, joo xamante ni dafa dem kër yaayam dem nàmpa li leen jàppoon ñun dem nañ ba benn moment rek ñaa dégg ñu ne ñu ngi ketal yaadoo ñaa ngi ko ba nga ko informé ne ko yaadoo feebar bi daf koo sonal ba mu ñu ngi koy ketal ñaa ngi ko def ne c'est pas vrai loolu mun a nekk ba mu koy yëgee it amul jàmm. boobu ba léegi mu ngi ciy xar ay tànk tubéyam képp koo xamante ni bu la woowee am na yaakaar si feebaru yaadoo bi ñaa ngi woo na la la preuve mooy seen Fallou Rahman keroog dala jàmm boobu may wax ñaa dafa jël téléphone am woo sëñ Fallou Rahman sëñ Fall Rahman daal ne lépp lu mu jàppoon na ko bàyyi na ñëw ma faj ko. doguma la lan moo tax ñànku moom jëkkatiwul téléphone am moom mu taal otoom. Mhm. dem seeti yaadoo que mu leen di yónni yéen. ok dem la ñànku dem na dalal jàmm fekk fa yaadoo ak yaay yaadoo. jël xaalisam bu mu yoroo si poosam lépp vidé ko jox ko yaadoo. ba pare jël photo ko euh, quarante yaadoo photo ko. pour jox euh, mooy këyit boobu Lamine di ko bindal pour mu boole ko moom pour jox ay médecins yoo xamante dinañ ko jël en charge léegi nag loolu mardi la mercredi jeudi si la vidéo bi génn. Ah, kon yaa Sénégalais yi bari xamuñu ko waaw maanaam vidéo bi mënoon na koo enregistré avant ñànku def acte bi. tax ñànku ba mu defee acte bi mardi mercredi jeudi vidéo bi génn Sénégalais yi ñu bëri comprendre lu. ñu commencé ko wax lu ko naqari ñànku nit la. parce que jël nañu ay photo taf ko partout ah ku nekk naan li mu defaru ko woon defaroon na faa dem. waaw parce que gars yi xamuñu. xam nga nit bu dara xewee da nga naan si c'était moi lii bu doon man hmm. ñànku nit la ba mu ba ko loolu amee nag mu ne comme man maa ngi def lu baax naa taxaw kon seetaan ñun ñi nga xamante ne nag ñooy ay jega du ko bàyyi si noonu ñu ñoo ne ko ak la loola mënta wax yow defal la war ñànku nag kon ne ma léegi defal doonal intermédiaire bi intermédiaire mooy ku xam ñànku production xam ni côté euh, coordination bi général la ko ñànku dégg artiste bu ñu a gis sax général moo lay woo nee na gëj nañ laa gis la moo la téye kon diggante ñànku ak yaay ak yaadoo général moo fa nekk na ku ne xam na ni traitement bi ba ko sëñ Fallou Rahman wooyee médecin yi ñoo ne ko munoo boole fee euh, garabu olof bi ak garabu tubaab bi faa nga utiliser benn. mais waxu leen waxuñu leen lan moo ko dal exactement. waaw instant yi euh, wax nañ am na ñuy wax nag coow li bari na mais lu dal yaadoo dëggantaan médecin bi moo ko mën a wax parce que ñii di wax ñii ñëpp seen xalaat la ñuy wax ndax barki dem muy samedi bi passé ba ñu yóbboo yaadoo man maa fa nekk ak ñànku ak magu yaadoo bu jigéen. médecin bi daf ne yaadoo dinañ xool lépp lu nekk ci yaramam ak lépp lu ko war a faj incha allah rabi comme lundi bu tay bi lu si am di dinañ la woo téléphone wax leen ko maanaam ñiy wax ñi ñëpp nag seeni xalaat rek la ñuy wax. d'accord mais ci ëmb bi daal bi mu amee doom ci la. waaw waaw waaw. d'accord parce que dafa defoon opération ba muy am doom. d'accord ñu bari dañ koy seedeel. Mm-hmm. artistes comédiens yi dañ naan. Mm-hmm. dañuy tourner mais suñu feebaree dañuy am problème. Mm-hmm. pour faju seen situation. du demee noonu est-ce que gars yi tamit ñu ngi leen di jox li leen war carrément. waa xam nga ñëppay feebar maanaam xam naa ne artiste comédien dañ see gën a weex dun ko rek mais nit ku yàlla bind mais pour li ngeen fajoo pour xaalis bi ngeen fajoo que gis nañ deme Eva engagé mm. def nañ mm. direct mm-hmm. pour di ko ketal pour jéem mm-hmm. ko yóbbul mm-hmm. est-ce que su fekkoon ni fay nañ ko li ko war carrément wala am na benn xaalis boo xamante ne dina ko mun a fajoo ko gars yi ku ah, nekk ah. di def sa live di wane jàppal leen kii parce que vidéo bi dafa lëmbee dëkk bi ah waaw xam nga du du ñëw sax si ay cadre payor ku ne xam ne ku xam théâtre Sénégal xam ne commencé gu no fay kenn commencé gu fay fay ay millions fayeeku nag général ah, ma ne théâtre Sénégal laa amul benn artiste bu fi fayee ko ay millions théâtre laa wax nag di waxuma cinéma maa ngi si théâtre bu nga xamante ni moom la ñuy def muy papa yaay doom amul benn comédien théâtre bii nii mhm. amul benn artiste comédien bu fi commencé fayee ko ay millions ay millions amu fi ah. ça n'a rien à voir fayee ko millions yow waaw waaw ah, déet da ko million fayee ah. loolu dama ko dégg déggaat mhm. kii li mu wax nii dama ko dégg déggaat mhm. ay affaire yoo xam ne yu minable moo fi. xanaa si producteurs yi la wala la. ça n'a rien à voir nag ak cinéma cinéma nag mën na laa woo benn personnage ñu fay la plus de cent millions cinéma am na loolu. mais théâtre bii ñu def amagul loolu. comprendre yaa doon nag suñu nit la même bu nga ko doon fay ay un milliard ñun bu feebaree war nañ koo taxaw te ñaa ngi ko jógu ci. ndax ku dem. ba jël la lijjantiwul lu nit ñi parce que yaa ngi may tudd léegi ay tournant ma ñu ngi koy ketal ñaa ngi xoolal lu ñoo ah, njëkk gis nañ ñu def live ah gars yi di ko capture dem na këram sonn na ci jooy na awa ba te ba ci ñànku la nekk léegi nag dinaa la leeral Sénégal fu mu toll nii Sénégal yi to xamante ni ñooy wax fu mu toll nii dafa am ñaari loo benn loo bi mooy ñu nga xamante ni dañoo yërëm yaadoo doo ñeewantal ko ñooñu lu ñu wax dañ leen di comprendre parce que ku nekk am nga xolu yërmande si nit mais daa am ñoo xamante ni yaa doo leen a jóg dañ ko def pour xeexee ko. ñànk moo leen di déranger. lu leen ñànku di déranger. xaw ma je ne sais mais nag olof mooy faral di wax naa nit bu lay dàq mënu laa jàpp lu mu jot dala koy sànni. war nga xam li tax ñànku di leen déranger. waaw parce que xam nga loolu lu loolu moom mënu ma koo wax. parce que nit mën na gis nit rek di ko neex loolu si doomu aadama la nekk mais dinaa la wax benn affaire ñànku yar nañ ko yar boo xamante ni nee nañ ko lépp loo xamante ni tuuma la ñu teg ko sa der bi amal xolu muñ ko. ndax góor dëgg ñu teg la tuuma nga muñ ko loolu jàmbaar moo ko man waaw te nee naa ko nag kuy yëg ci kaw garab te xeer bu la sànni nga bëgg a wàcc fayu ah, doo àgg fa nga jëm te kay dalay tardeel mm-hmm. waaw moo tax ñu ne ko bul tontu bul tontu benn nit am na loo xamante ne yaa ngi koy def te yàlla xam na ko yow mu koy xam def xam nga ko te ku koy defal. mais général dëgguma la xam nga tamit àdduna la ñu nekk. des fois mhm. faw nga génn. Mhm. suñ la waxalee dara que ñi ngi jël photo ñànku. Mhm. di ko taf partout ku nekk na ñànku. ku xam yaali ci ñànku la ko xamee. kon ñànku waroon naa génn tamit daal di leeralal wala mu daal di génn daal ne ah man kat yónni woon naa par exemple Cheikh Mbacke. général diw ak diw dem nañ fa. Euh, xam nga daa am benn danger bu nekk si lu ñu la wax nga leeral. mooy nit bu nekkee tuuma bu tegu sa der daa defal naa rek nit bu fekkee daa am daa nekk ni koo xam tuuma bu la nga jóg leeral tuuma bu la nga jóg leeral bis dina ñëw ñu tuumaal la doo am jot doo mën a génne leeral ñu ne kon moom la mais foo nga tàmba sénégalais yi la wax nga booleeg sa pat ak organiser ko nu ngi yéen jigéen ñi après nga def lu ngay def si suuf l'essentiel daal ay ñànk war na fajaadoo war na ko defal nangam lu ëpp soxla solo fu mu toll nii mooy ne ko sénégalais yi ñaanal ndax nit ku nekk ci métit nekk ci jàngoro ñaan la gën a soxla ko ay détails waaw ñun foofu la nekk fu mu toll nii waaw Cheikh Mbacké seede na ci yow bi ngeen di dem di yóbbu xaalis bi moom dafa loolu benn yoon la ci parce que bu ne ba ngeen di dem day doon benn dem la ay dem yu bari la d'accord <laughs> xam nga ñun lu ñuy def amuloo ku ñuy rendre compte suñu diggante la ak suñu élément waaw ah, mais Sénégal ngeen nekk la waaw waaw mais Sénégal la nekk <laughs> léegi seen moo mais di waaj ñëw moom defoon na si benn taxawaay bu yaatu boo xam te waa ñàkk production moom sax bu ñëwee dee si gën a leeral an sëñ Modou. Mhm. loolu xam naa moom si gën a jekku pour leeral. lu amul seede amul dara ah. sëñ Modou kaay kaay nga wax loolu. lu amul seede amul dara parce que. ñànku dafa war a leeral bu baax ah. <laughs> sëñ Modou amul seede amul dara. Euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. Euh, bàjjan di rafetlu émission bi dëkk bi doy na waar trop jamono ji ñu tollu trop. ci kaaw yaadu ak ñànku. Euh, foofu nag duma fa wax lu bëree bëri li ma ci xam laay wax mooy. yaadoo feebaram bi am na ñoo xam ni sax ñu ngi génn dafa yóbbu xaalis naan dañ koy yéex a yëg. te daan na liggéey nag moom. yaadoo bi mu feebaree général wax na ko léegi ñànku def na ci ay taxawaay. bi ñu demee ba médecin bi daal ne feebaru olof bi ak bu tubaab bi dañ bàyyi médecin bi continuer. ñaangi ko dafa wax nañ dajale xaalis ñu yóbbu ko fa man mii maa doon laaj xaalis bi laaj ko laaj ko ba mu toll ci lim bu takku ma ànd ak papi ak Aliou Pata ñu yóbbu ko ci clinique bi yaa doo nekkoon fële ca Kër Massar donc boobu nag daaw la mais da ngeen ko waroon a filmer si ñun ñun ñun c'est pas le ah yéen du ngeen filmer non non non ah, ñun yàlla moo dogal ndeysaan ñun ñi ànd ñëpp euh, donte bu ñu baaxul tamit am nañ tuuti as yaru daara mm-hmm. bëgguñu sax di defal nit di ko wax ñànku yàlla seede na ni moom bu lay jox xaalis sax du bëgg nit xam ne kii xam ne mu ngi lay jox xaalis moo tax bi ñu fay dem dañu fa dem en tant que jullit ak moroomu jullitam en tant que nit ku war a taxaw nit ku muy liggéeyandool moo tax bi nu ko joxee xaalis bi yamuñu foofu dañu ne ko daañu continuer ak yow foo ci toll nga wax ñu bañ demee ba ci biir général mii toog def na ci part bu am solo mooy daf ko boole kilifa gu mag mu koy faj fajum olof Seydina Aline boobu maa ngi profité di ko nuyu te foofu sëñ Modou mais mais xam nga Sénégal tamit su ñuy def dara tey benn bàjjan dafay jënd ay teranga Fatou def anniversaire wala Fatou ah, di fêter anniversaire doomam bàjjan a ànd ak média a jël téléphone am dugal fépp ci réseau ah. la moo tax gars yi yaakaar ne ñànku tamit deful effort dañu xam dëgg moo tax ma ne loolu bàjjan la loolu bàjjan la mhm. la moom buy def day bëgg nit ñi xam ko mais mu génn mu wax bu ñuy wax waaw yaadoo. est-ce que jaru ko ah jaru ko. jaru ko mais yaadoo xam nga tamit wax léegi baa ma leer la la bàjjan parce que fu mu toll nii Sénégal yi dafa jot pour ñu comprendre. Mhm. gis nga Seydina Alioune Mboup jël na ay garab yoo xamante pour mu jox ko aadama xaalis bu bari ngay fay. Mhm. jël na ko jox yaadoo si gratuitement à cause de moi. Mhm. ba mu ko defee ba yaadoo dem këram di ko sant daf nekk bul ma sant. santal ñu la fi indi. bis boobu Seydina Alioune Mboup man mii la woo ma jël téléphone jox yaadoo yaadoo yàlla ne ko jàppal ma la dara sama jigéen nga sama lépp nga tey bu ma dégg atoon yaa ngi si beneen jafe-jafe damay ñëw taxawu la. boobu nag yaa tane na parce que am na ndox mu xonq mu doon génn si moom ba ma laajee yaayam daf ne ma ndox moomu arrêté na génnatul. yaadoo mm, yaadoo kon kooku mu ngi tane. malade nag bu feebaroon ba tane da koy bàyyi mu noppalu. vidéo bii mujjee génn ba tax sénégalais yi bëri di wax. ku ne di génn di wax waaw. merewu ma leen ci nag de. parce que seen bëgg-bëgg la non même bu seen bëgg-bëgg la ñuy waxee. parce que ku ne xam ne Sénégal daa benn benn xolu yërmande bu nekk ci moom Sénégal lu mu gën a bañ mooy kuy néewal doole nit ak kuy toroxal nit Sénégal bëggul loolu. kon bu ñu gisee yaadoo toll si yenn situation yi ñu génn waxal ko dañ dañ leen di comprendre xam ni danoo comprendre ni sëb la ko bëgg nga ci biir. mooy bëri na loo xamante ñun ñu ngi koy def ci suuf te ñoom yëgunu ko. mais ñi koy ketal tamit ay jàmbaar lañ ah. waaw ñu leen di félicité loolu ñu ko ketal. nañ ko yóbbul waajuru yaadoo ñu jox ko. ñu xam ne ku yor malaat dafa metti ñun nag lu war suñu diggante ak yaadoo même bu nu médecin bi woowoon tey tey tey daal ne lu war a faj yaadoo 100 millions la ñun pare nañ pour jël cent millions yooyu jox ko médecin bi ah, non du am xaalis nit ñi lan am <laughs> amuñu xaalis nit ñi lan am yàlla rek waaw mi ngi tane ah mi ngi tane bu mu ngi tane mu ngi tane baax waaw parce que jëkkëram ah jëkkëram dafa fu mu toll nekkul ak moom Mm. waaw moo tax yooyu yëpp ay ay problème famille la da nga leen yow nga def lu nga xamante ni moo war si diggante euh, jullit ak jullit ko yóbbu ko clinique waaw parce que moom dafa nekkoon état de grossesse mm. ba muy am doom opération la nga ko def si la feebar bi feeñee loolu moo ko gën a mm. moo ko gën a sonal léegi nag ñun yaa ngay wax am ngeen xaar ñu amul xaar nit ñi leen am parce que nit ñi ban yëgee ni kii si ñun la bokk ñu nga xamante ne am na numéro ñànk woo na ñànk nekkoon lu si am wax na ko ñun lu si sunu doole ñu def ko Mm. da nga gis benn commentaire naan ñaanku xam na diw la moo tax wóolu diw léegi ñaanku bi woo diw dalay woo ne la bàjjen maa ngi woo diw déedéet <laughs> da kay woo kooku lu mu ko wax ñaanku la concerné bis bu nga xamante ne médecin bu nga xamante ne moom toog na sër doo toog man ma toog xale bu jigéen boobu may bañ a tudd turam toog xale bu jigéen non bëgguma tudd turam si média parce que bëgguma xaw ma ba xam bëgg na ma tudd turam moom xam na lu may wax médecin bi taxaw na wax ak ñun mm. gémminam sunu nopp daan bu tey lundi bi ñu nekk tey lu si am dinaa leen woo téléphone wax leen nangam la. incha allah <laughs> mais nag euh, am na loo xam ne man ba ñu baal ma rafetlu wu ma ko. Mm-hmm. mooy euh, filmé bi ñu doon filmé yaadoo muy tur ndox.

Sénégal Sénégal day fekk nit ku toog ak sagam. mu koy wuññi ba mu xaawi suturaam. Ah. parce que nit yor na jàngor bu mett ay mbokkam faj ko ba mu wér te kenn yóbbu ko man damay feebar ah, ah? xam général lu may wax nii ñànku feebar na feebar boo xamante ni. Hmm. ko dal matugul un mois lu may ak ay mbokkam faj ko ba mu kenn yëg ko. est-ce daa génne Wally Seck moom war a faj. mais feebar yi bokkul de. Ah. attention waaw parce que xamoo feebar bu daloon ñànku moo tax. d'accord parce que ñun xamante ñoo nekk ci biir néeg bi xam nañ ban feebar moo daloon ñànku. mais kii li ko ah, loolu feebar la. gisoo yaadoo bi muy saw. Ah. ñu baal ma ci kàddu gi. ni mu doon loxee di kat kat yi. ci vidéo bi gis nga vidéo bi. jàppale. wallaahi d'accord man kuy bëgg yaadoo ñun ngay jàppale. Mm-hmm. parce que yaadoo ñoo gën a bëgg wéram ndax suñu la bokk gis nga waadoo yaadoo tey bés bu jigee woon si ñun ñun dañuy manqué ndax boo wonee yaadoo rek ñànku production ngay wax excursionnisé yu bëri man ak ñànk moom moo ci doon sama jabar mu mën la muy def di yàgg a bégloo sénégalais kon kooku c'est normal que bu tëddee feebar sénégalais yi jug ñaanal ko ndimbal sénégalais amuma dara lu ma leen wax mais dama leen di wax nan sóoraale am na ñoo xamante ni ña yaadoo taxul ñuy def vidéo hmm. ñànku la ñuy xeexal wallaahi seen bopp la ñuy promouvoir la ñuy bëggoon a wax ñànku te xamul fu koy jaar si la ñuy profité di wax. Mm-hmm. ñooñu waxuma ak ñoom xam nañu laay waxal benn bàjjen bi nga xamante seetaan na yaadu en tant que jigéen mu am yërmande si moom jël juróomam def kooku laa naan félicitation. Mm-hmm. te lépp lu mu si na ko def. Mm-hmm. waaw d' accord est ce que jotul tamit euh, yéen artistes comédiens yi. ngeen daal di créer benn affaire boo xam ne wala leneen pour ku feebar. yàlla may sutura lay ñaan. kenn ku nekk yàlla na ko yàlla may sutura. parce que nee naan gor su nekk lu muy dundee yàlla bu ko noonoom xam. Mm. sag rek moo fi nekk kenn amul. da gis nit. nga ñee ko fekk lu muy dund bu la ko waxoon nga fàtte sa problème. moo tax ñun danoo nekk ni koo xam danoo jàpp ni ku ñuy jug di la wax suñu soxla yaa nu ëpp soxla. mais boo boole suñu ngor. ak sunu personnalité xool lijjantee sunu bopp ba kenn duñu xamal. d' accord d' ñu yaanal yaadoo rek yàlla yëkkati ko parce li may wax mooy. feebar ak dee dañoo daal di wutee lool nit ki mun na mm-hmm. feebar ba sonn. Ah yàlla ne ko déedéet deewagoo parce que yàlla moom moo xam. Mm-hmm. Euh, doomu aadama bu ci nekk ban sa àpp fan la yem. Mm-hmm. te yàlla yeex yàlla yëkkati ko parce yàlla rek la ñuy ñaan. bàjjen ñànku jàmbaar la trop ñun ñu nekk moom. xam ne ñànku jàmbaar Euh, da ngeen ne da ngeen jàppale waa culture yi. Mm-hmm. di leen euh, euh, dimbali. Mm-hmm. am na ay nit ñoo xam ne bu ñu bu leen dara dalee. da leen di jàppale di leen yóbbu bitim réew pour ñu faju mm-hmm. cette dame là. dafa am njëriñ ci réew mi. par rapport ak ni muy bëggalee doomu aadama yi. ci sa ci ci Sénégal bi. waaw xam naa nag ay nit ñu baax ngeen. li ngeen war a def nag mooy ndaw si. comme film ba génn na ba pare. te waru woon génn nag ñu koy filmer léegi comme tekk ngeen seen bët. Euh, jiital leen yërmande. moyen de l'état yi nga xam ne yor ngeen ko. ngeen jël si as tuut ngeen seet bu fekkee ne mën nañ ko faj parce que ñii wóor na ma ne dañuy taxale kese. te keneen ku si def dara da ngay a def tuuti kii rek ay geste mais mënoo ko parce que dëkk bi ci boppam moo dëgër. Mm-hmm. comme yàlla def na nag yéen vous avez les les les les vous êtes dans dans dans le pouvoir. Mm-hmm. eh bien en sorte que yi ngeen yor comme moyen. Mm-hmm. ak comme ay fonds politique fii la fonds amee njëriñ. jëleen alal bi ngeen jox ci ngeen laaj ndaw si lu mu bëgg euh, ngeen dimbali ko euh, Moustapha Guirassy waxal sa gars yi ngeen góorgóorlu jéem a jël weccet bu takku ngeen laaj xale bi lan moo koy faj ngeen dem faj ko ndax mu mën a retrouver dans sa dignité mbaa saisir ngeen ministère de la culture tamit Fatou Diouf ku toog ku toog mhm. euh, munoo dem tuur ndox mhm. xamal ni sa àdduna tukki la waaw bu ma amee xaalis nag man wala ma téye nguur mm-hmm. loolu woo du ko seetaan d'accord da leen yàlla dimbali da ngeen gis loolee mm-hmm. ndax ñun dinañ ci kontaan trop boo leen defee loolu ndax ce sera mm-hmm. suñu xol yi dina féex ndax lii ñuy wax ci ndaw si na nga xalaat benn yoon rek. Mhm. nga am ku la jege ku mel noonu. dëgg la ko la yàlla dimbali yow soxna si ba nga génn ci li nga nekk. waxtu bi daaj nañuy dab euh, général kontaan nañ trop euh, di ñaan yàlla yal na ko yàlla ci daal. amiin mi ngi noonu su ko defee nag Fatou tey damay sant Fatou ju Faye ko euh, <laughs> su tey Fatou laay sant ah, waaw sama maquillage bi su baaxee <laughs> ma rafet daal di belli moo ma jox ay matériel ay maquillage yu rafet. macha allah di jaay ay poudre marque <laughs> doo faare doo ñàkk da nga koy def gën rafet macha allah ku ci bëgg rek mën nga ma contacter. merci beaucoup Fatou. merci beaucoup merci Badiane nationale suñu Badiane euh, nationale. Euh, moom tuddul <laughs> c'est normal di jaajëfal di jaajëfal <laughs> ah, tamit say invité. Dibor euh, Dibor rek Yadou moom yàlla génn ko ci bu nekkee surtout donc di la jaajëfal Aliou Sow di jaajëfal Cheikh Diane Gomis ak nga xamante ne mooy Théodore Semedo fi nekkoon ak équipe technique bi nga xamante ne moo ñu doon accompagné depuis ce matin ñu bàyyi leen léegi rek Mamadou Biteye ci émission bi di Saf Sap très bonne journée.